salaamaaleykum gars yi dama leen bëgg a wax ne leen répétition bu Sidi Diop ca laa jóge léegi àdduna amul solo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi way na ma fa nee na ma doomu ndey Waly Seck Viviane sa yaay way ma lu neex Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Waly Seck mi nga xamante si nii moom mooy sama woykat yaa ngi dégg moom mooy sama waykat ma bëgg ko loolu ñëpp ko xam te loolu du saasi mais Sidi sunu frère la bu ñëwee Europe ah dañ koo war a jàppale ndax bu demee Sénégal am fa ndam loolu ndamu sénégalais la du ndamu Sidi beneen bi ci tegu mooy yéen ñiy seytaane ci direct bi ma dégg leen ngeen naan aadama moo foo aadama man du ma foo fi ma far kenn mënu ma faa jële mais Sidi sunu frère la ñu organiser soirée bi sunuy frère la ban danay xamante sii Sidi taxul yaa ngi dégg léegi nag mu nekk loo xamante nii suba la talant incha allahu rabbi fii lay amee fii lay amee yaa ngi dégg Wally Seck Abrecia Wally Seck mi nga xam ne man laa moom laa bëgg gis nga boo bëggee nit di ko roy da ngay roy ci li nga xamante si nii moom la nit ki di def xam nga mooy lan waali si xam nga ne du ma yónnee naan ma saagaal ma diw wala mooy jox ay vidéo taat naan ma publier ko parce que waali xamul loolu te du ko def léegi man yooyu nag dama ko war a jël yu baax yooyu roy ko moo tax may ay reedaat xam ne àdduna amul solo mais yaa ngi dégg mais du question Adama daa foo Adama daa nangam suba le 30 incha allahu rabbi Brescia fii ma ak Ndeye Ndiaye bànn yaa sa dernier mariage dama koy takk mu jeex ku ko bëgg a seetaat ñëwal le 30 ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi yaa ngi dégg man nit ñi xam ne damaa foo wala damaa foo bëgg naa waale wala bëgguma ko intéressé wul loolu pour nit ñi xam ko Wally Seck rek la intéressé te moom xam na ni ma mel ci moom Sidi sama frère la point final suba incha allahu rabbi le 30 fii ci Brescia way yi ma Sidi way nag ñeex na lool te naa ko dugal wasalaam. mais Sidi sunu frère la bu ñëwee ci réew mi fii dañ koo war a jàppale waruñu koo yàqal siidi déggal man boo ma dénkee micro ne ma kan moo dàq way Sénégal ma ne la waale sekk mais kenn si yenn sañu ñu koo dénk mikoro mu ne Sidi Diop mënut a way amul ku mën a way la. bu ngeen déggee ma ne leen sii di li ma way kenn mësuma koo way ci àdduna bi xam nga lan la Sidi dafa ma tiim di ma way di ma way ba sama yaram bi way ma loo xamante si nii ba pare teel a njàkk baay yéen ñëpp xamoon ngeen ne sama papa dafa faatu ba ma juddoo loolu lépp Sidi da koo jaar jël taawam kenn mësuma koo way ne ku ne way mais li ma Sidi téye bi déggoo ma de xanaa yéen xamu leen ay way xanaa yéen xamu leen ay way li ma Sidi tiim téye ma ko. way ma ko waaye non non non non eh, dama ne la man waalee sama waykat waali rek laa bëgg waali rek laa bëgg kenn mënu maa jëlee ramdaan kenn mënu maa jënd lu dul waali bàllaago sekk bëgguma ko mais Sidi sunu frère la amul lu may bañ si moom Sidi du sama ennemi du sama noon pourquoi ma mën a bañ Sidi Diop yéen yéen ay saytaane yi yéen ñi naan Adama daa foo parce que dem na ci Sidi Diop loolu neexu leen ku mu naqari nga taal gaas nga toog ci aadama samam aadama bopp la man faramaarin laa waale rek laa gëm ñi ànd ak waali sekk di nekk ak waali sekk di nekkandoog waali sekk ak waale jabaram ak entourage am xam na ne aadama waali sekk rek la bëgg ak fu mu mën a dem ak fu mu mën a nekk waali sekk kese la bëgg loolu nit mënu ko dindi ci àdduna bi mais Sidi sunu frère la Sidi sunu frère la bu ñëwee fii dañ koy jàppale ba may way déggoo ko doomu yaayu waali sekk nangam Viviane sa yaay xanaa yi déglu leen way bi dégluwu leen way bi xanaa dafa jël taawam way ma lu gudd man fi de vidéo yëpp sax mënu ma ko dugal barki Serigne baaba Sy doomu Viviane doomu nayu waali way ko lu rafet xëcc ko xëcc bu garaaw yéen ngeen doon ay saytaane di wër di jaxase yéen bu ngeen jógee naan aada mooy jaxase artistes yi aada mooy jaxase artistes yi bu ma demee ci Sidy Diop wax ak moom nag yaa ngi dégg nekk ak moom jàmm war a am Sénégal ñu war a xam ne ñoo bokk ndey bokk baay ngeen ne aadama wurta def loolu dafa war a dekk ci waali wurta dem fee nangam nangam nangam nangam yéen yéen ay ndeyu saytaane yi man waali rek ma intéressé te waali kese laa bëgg yaa ngi dégg te waali sekk bëggul bëggul kuy jaxase bëggul kuy wax soo bëggee waali nag dangay roy Wally Seck ci li muy def Wally xam nga ne man du ma wax ne ma saagaal Sidi man maay xool lu ma sentir ma def ko Wally du ma yónnee ay taatu nit naan ma publier ko parce que xamul loolu léegi yow yaay usaare sa mayin nga nekk sa nekk bopp xool sa conscience tranquille bul doon ngaaka bul doon dof man Sidi defuma dara Wally sama waykat mais Wally bu nekkee sama waykat loolu loolu loolu sama xol la nekk sama waykat la publier Banaya Banaya dégg naa démb ba may wax vidéo bi ñu bëri ci yéen dan naan dugal ko dugal ko dugalal na vidéo yi dugg comme doon sa ndey ak sa papa di nga ko wax comme doon koo bokkal ndey ak baay di wala sa bu jigéen yéen yéenay naafiq yi comme doon sa rakk bu jigéen da nga naan déedéet aadama suturaal ko bàyyi ko xaaj commentaire yépp dugal ko lan doon wax pour lan xaaju commentaire yi dugalal vidéo yi lan doon wax bu nekkoon seen yaay nag bu nekkoon seen papa wala seen rakk yu ngeen bokkal ndey baay wala seeni i mbokk lu ngeen di wax lan ngeen di wax lan dugal ko dugal ko ngeen di wax yéen yéen ay saytaana yi pa man nday njaay bànn yaa séq naa moom jàmm dootuma ko saagaati duma ko waxalati dara dama koy bàyyi mu continuer carrière am nekk si jàmm te ku ko laalati sax ma teppi sa lëfal ndey Sidi jot sama frère la waxtaan nan sama frère la dénk na ma ay conseils dégg naa conseils yi ndax mag la taxawee Wally sekk boo ko dee roy danga koy roy ci lu baax man munu moo ne damay ànd ak Wally Seck ba pare topp nit ñi rek di kii artiste bu nii loolu du du sax du yëx sax yëfu nit Wally waxuma ma saaga benn artiste saaga ma kenn Wally néewuma Adama del saaga artiste bii musuma koo sant Wally waxuma diw a ngi nii dee ko publier musuma koo wax léegi nag man jikko yooyu noonu Wally xamu ko parce que Wally du def loolu waaw man tamit dama war a def ni Wally di def di roy ci li muy def bu gisee di nuyu ko jàmma sant gis kee nuyu ko jàmm sant bañ a wax lu kii nekk fa direct nekk say actualité loolu laa bëgg di def loolu moom laa bëgg di def man ba leer na damaa bëgg mu leer seen bopp yi waaw dama bëgg mu leer seen bopp yi ku neex ak ku naqari noonu laay comporté woo léegi man noonu laay def léegi waaw noonu laay def léegi nekk samay affaire waaw képp ku mu neex yaa xam ku mu naqari yaa xam man waa je me bats les couilles moom faramaarin laay masa doon waali sekk moom waali rek jusqu'à mort waali kenn mënumaa génnee ci faramaarin kenn mënumaa génnee ci waali sekk man xaalis du ma jënd man nit mënumaa jënd naan ma waxal ci diw nit mënumaa jënd naan ma nàngam déedéet man waali rek ka ma ñor nit mënumaa defal waaw saa man de boo ma xoolee rek xam ne damaa pare soo ma lugee rek lug nii rek xool ma nga xool ma nii rek lug ma lug ma nii rek ah, ba ci kaw ba ci suuf no no non nit mënumaa jaaylu ma saf man nit mënumaa jaay lu ma saf waaw kay léegi nag dama bëgg yéen seytaane yi ak rambaaj yi ak jaxasekat yi ak naafiq yi kuy am luy wax nit nga taal ko nga wax ko ko